Je lay avertir évite les discours incendiaires évite ça nga pour pour faire du populisme nga dem waka def usine de désencellement nga man dawal na Allemagne ba Sénégal et plusieurs fois Bo de romb jógee Tanger fa Agadir Tantane, Bouche d'Our ainsi de Dakhla ba da ngay frontière doo daw benn 20 km wala 50 km ya nga xam ne ben désencellement buñu bu ñu ci gi pour mun ci di arroser fleurs yi mun ci di béy mun ci di def lii mun ci di def la président Macky Sall ñëw mu mu rêvé mu gis ko bam koy rêvé c'était en 2018, la don rêvé les terres la don rêvé euh, BRT la doon rêvé aussi désencellement pour que Dakar au moins mu am fenen fu muy jëlee ndox fu lac de guerre parce que nous wara des dem ci benn ëpp mondial ba nga xamantene suñu sécurité dafa wara dépasser suñu ndox di jógee seulement lac de guerre war nañ am benn source d'alimentation d'eau bu du lac de guerre mais le populiste est là le chronimenteur est à côté et pour ne pour vous m'excuser du terme le journaliste est là pour pour effreindre lolo pour dindi lolo yépp tegal len fi benen façon lan moo tax usine de désencellement bi am tout développement s'accorde avec des risques tabax sa keur sax risque la parce que da ngay dem lepp jënd terrain wala nga économiser pour jënd terrain da ngay dem lepp pour tabax wala nga économiser pour tabax est-ce que yow di nga dugg ci suufu toit boobu ndax di nga ko fekkee lépp risque la àdduna donc il a risqué yow nga ñëw au lieu nga jéem a def ndànk même pas cinq mois le populiste vient et dagg contrat bi ñu lié ñun ak Arabie Saoudite mais saoudien yi sawaay benn prince la mu denc ci banque ba rek ëpp na suñu budget di dem yow nga ne da ngay xex ak koku koku do négocier ak mom naxante ak mom dem ba fofu tok bu ngeen julle ba pare nga won ko yar teggin ak diiné won ko yar teggin ak diiné dem ak mom ci diiné jaar ak mom soit kam gis nga ñom ñu dem ba Medina bay mais respecter le Sénégal fi nga xamni yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa la tëdd ñu soxla ñaan jéggi dëkk yépp dem ba Medina bay kaolak dem ne señ bi ñaanal ñu pour que suñ digënté ak amérique ratax waye nak ku falu mëno dem medina bay bu jégué bi saoudien yi ëpp le ful la joggé arabie saoudite ñew meri ñew medina bay pour ñaan lu ci yow bo mënul respecté li nga mom di def ay samba alar di outil burkina niger nga xam ay concurrent ñoo fa am ak ay new bo déggé makoy wax c'est parce que j'ai mal quand des gens ci nga certificat d'études primaires élémentaires au Sénégal égal BFM au Mali des Maliens se permettent d'insulter son premier ministre pensez-vous que l'on dafa un en bon républicain L'on de les et moi je suis un républicain man suis un républicain. mën naa ko attaquer nag parce que je suis sénégalais mais beneen étranger bu attaquer ma jàkkaarloog ça me fait mal nous qui vivons dans la diaspora perte nañ suñu respect perte nañ dignité perte le plus lu à cause de ces dios prématuré et apprentis au sommet de l'État Là nous nous humilier encore où au Rwanda quatrième position nous ñu derrière derrière derrière derrière le premier ministre rwandais fa lañ ñu parce que lan moo forcing lan moo populisme lan par A ou B ak comme niko Khalifa Sall waxe, Nous bok, dem rek avion présidentiel bi moom Nous ci tapis rouge bi na ci dox palais bi na chaise bureau bi bureau na photo président Diomaye nek, ak photo j'ai mal pour ce pays wallahi li ma li ma xam man Sarr bu ngeen ko xamoon te ma leen ci compal nag chaque jour tuuti mu ngi mel ni saal bi ni mu réyee rek ma compal leen tuuti ci koñ bi rek di leen ko jox chaque chaque semaine mu leen di jaaxal bu ma leen comp bu ma leen ci tibbaloon kaas boobaa ngeen dof am na lu ma xam lu bari te di leen di avertir faites attention ñu humilier ñu Rwanda Ousmane war a ñibbisi bu ñibbisee mu modeste delloowaat boppam ci suuf def bal à terre déedéet Ousmane doyalagul de dem Mali ñu saaga ko Rwanda humilié nañ ko moroon doon nekk leçon ci moom déedéet Ousmane dem Mali ñu saaga ko saaga tous les Sénégalais Mali ñu ñëw ñu naan ko yaa fi waxoon lii mais dafa mel ne la nga waxoon ak ni ngay dundee tey ji bokkul loolu mooy lan VAR VAR malien yi sax jël nañ var tegal ko Ousmane Sonko ne ko bayil fen bayil mew mais le mot c'est ça du saga du saga dafa fen dafa fen yow yaa ngi jógee Rwanda barki Dembo ndjay ñu émuler la nga wara jël avion bi ñepp Senegal, Sénégal programme wat benen jour pour dem Mali dedet nga ne il faut ma wacc Mali rek parce que programme nga dem fa ñu saga la on t'a insulté parce que bu ñu jëlee journaliste jox la ko journaliste bi di la wax la nga xamante ne nga nekk fanaan eh eh eh Abdou Mbow am na lu waxoon nee na bu Sonko di fen rek danaan barki démb buy fen rek danaan barki démb waaye Ousmane seetlu leen ay vidéo bés buy fen rek da ngay dégg eh eh eh je perds les mots eh eh fàtte naa tuuti eh eh rappelle-moi am na nag lu ma monsieur Ndour jàngaloon si so maîtriser dara les mots. day ñëw aisément pour le dire dafay ñëw aisément looy wax danga koy maîtriser Ousmane demal jàngi Cheikh Yérim nee na la nga jàngi tubaab la nag notre notre diplomatie insulté ba pare nag dem tabbi Arabie Saoudite mu nekk musiba naaru lay sama gaay dama leen di ñaan nous concentré autour de l'essentiel le pays le Sénégal a été menacé à un moment donné par des djihadistes mon frère Antoine Félix Diom l'avait dit le président Macky Sall l'avait confirmé mais ngeen jàppee ko ay caaxaan gis nga mag mi day toog ci souf ci suuf bi ci basang bi di gis la nga xam xalé bi ci gratte-ciel lay tok te du ko gis pour dire que l'homme le plus renseigné au Sénégal, ou bien l'homme qui était le plus renseigné était là. L'homme qui était le plus renseigné au Sénégal, c'était le président de la République. Il ne l'est plus. Parce que Diomaye n'a renseignement. Il n'a aucun renseignement. Aucun. Aucun. Il ci Aucun ben renseignement il ne dort plus, ça je vous dis. maa ngi ñëw laa moment bi nga xam ne jihaadis yi fëgg nañ bunt bi mu dëgër ñu fëggaat mu dëgër xam nga lu tax des camps mixtes à Goudiri des aéroports un peu partout dans les frontières nord le Saint-Louis rénové nord saint marine nationale musul fa am sur l'ère Macky Sall la amee au sud rénové l'aviation Au sud, la marine nationale est installée là-bas. À Dakar, à côté de Thiès, l'aviation navale. Mais des patrouilleurs, flotte bi nga mu ngi Sénégal des avions yi nga sur ce ñu ngi circuler ci suñu ñu ngi circuler ci suñu ngelaw pour lan pour sécuriser notre pays parce que le danger peut nous venir de partout au sud de la Guinée-Bissau bi nga xamante narcotrafiquants boo ne leen ku ngeen gën a bañ ñu ne la Macky Sall parce que en un moment donné daf leen tek dëgër ba nga xamné xamuñ fu ñuy jaar té Dakar plateforme la Dakar plateforme la pour nga joggé Dakar dem États-Unis wala pour nga joggé Dakar dem Europe plateforme la ci biir Afrique donc nak là les gens voulaient coûte que coûte coûte que coûte laa la wax dugg ci biir jaarale drogue bi. C'est la Macky créé tout ça pour se développer pour développer un pays il faut le sécuriser d'abord ma waxoon len fi nelen fi lay defee ben transition pour dougou le danger qui guette le Sénégal en 2021 après bi affaire Sonko jeexee Adji Sarr Maham Diallo nangam nangam dama defoon ben vidéo Manélen, man ma ma appelé attention au Macky Sall ma Débarrasse-toi du SEMGA, débarrasse-toi du chef d'état-major de la gendarmerie, gardien de la justice militaire. on est con SEMGA à l'époque kan le chef de gendarmerie à l'époque c'était Jean-Baptiste ministre de l'intérieur c'était général Biram Diop ministre des forces armées Ça, lu muy wax daf koy maîtriser et lepp luma len musa wax gis ngeen ko da ngeen di dëgër bop kay tok ba ku nek nak yenu sa ëmb utu yoonu barni kero ngeen nan ah sa way de lim fo xon deug la wala ma de nak ngeen do ko reconnaître parce que sénégalais bo de lay do reconnaître parce que ñu ngi wax mam les ku wax wax journaliste bu tuddu ne mam les camara journaliste bu tuddu ne babacar touré waxuma lo de babacar touré bu mag bala wax parce que ñoñu de nañ motax ñu leen di tuddu day mais de vrais journalistes yu nekk ak de vrais de grandes personnes yu leen di wax dëgg du ngeen leen mais suba ngeen leen di nangu buñ souvent wala suba ngeen leen di bu problème bi amee dëgg bu bi problème mais nañ dem wait and see 2021 général Jean-Baptiste Tine avait laissé les manifestants ñu ñëw ba buntu brigade recherche nga xamante ne benn camp Leclerc bi nekk Liberté 6 effectif bi am rek bloqué Gaï depuis Grand Dakar wala fenen mais Jean-Baptiste avait laissé ces jeunes là ñu ñoo ba buntu de xam nga c'était quoi c'était une coordination ba nga xamné dañ ko parce que Macky est un homme d'État était entouré d'hommes d'État ils ont renseigné à Macky li nga xamné moy xew waxon na len fi ne fofu la

un jeune gendarme adjudant Touré loxo bi ne dag dagg gendarme yi melni nak jaan blessé jog rek jàkkaarloog foule bi repousser len bañu dem bu ngeen xolé ci 20 minutes la gendarme yi def ben forcing boy delouat cette place qu'est-ce qui s'est passé après ou avant général Biram Diop maïwa, c'est lui qui avait dit à Ousmane Sonko reste tranquille tu vas dormir chez toi après demain demain di nga ñibi sa kër le du le juger ken du le yóbbu mandat dépôt comme Ousmane c'est un poltron et poltron du xex ak arme conventionnelle tapet du xex ak arme conventionnelle ça je vous le dis parce que je suis une personne ba nga au moins yalla def na ne musna té fétel tiré na tapet du xex ak arme conventionnelle la nag Biram Jóob bobu noonu ak Jean Baptiste qui nous ñu affecté Brésil nous ñu affecté ko Russie ma defaat une vidéo mané la plus grosse erreur bi président Macky Sall def ces gens là ces traîtres qui étaient parmi parmi nous ces traîtres au sommet de l'État j'avais averti le président Macky Sall wallahi zim, vidéo yangfi, fi vidéo est il suffit de taper Diaspora News TV gawlen bala ñukoy tej ngeen jël vidéo sauvegarder ko je suis prêt à vous dire la vérité tay dama taxaw pour wax ak yeen wax ak le danger qui quête ce pays et le complot au sommet de l'État ça va sauver notre président Diomaye Faye ça va sauver au moins cette nation pour ne pas vivre la nga xamné Sénégal musu ko dund dund nañ famine dund nañ sécheresse dund nañ Covid dund nañ lepp lu metti mais musuñu xam coup d'état musuñu xam coup d'état liñ xamone moy mouride bi buñ ko joxé ndigal donte amna na lu ko naxari mu dem tok ñaata yoon la fi xalif général des mourides o ay enseignants yu nekk en grève ay ñeneen ñu am lu leen naxari mu ne leen teg leen ko ci suuf bàyyi leen mo waxtaan ak Ablaye wad wala Macky Sall wala Abdou Diouf ñaata yoon ñaata yoon la fi jàngu bi régler ay problème l'église catholique ñaata yoon la fi waa Tiwaawoon régler ay problème mais maintenant di gatsa gatsa de Ousmane Sonko moi je vais te dire gatsa gatsa Ousmane Sonko tu fais partie de ma génération tu fais partie de ma génération je vais épargner les grands ma vais yow ba tout ton projet projet ba nga xam ne Là, ces gens-là, affectés. On les a affectés qui Russie, qui Brésil. Nous avons ces éléments de défi. nous, la Ousmane Don wax naan lépp luy renseignement dañ indil suma table il a raison il a raison parce qu'il y avait des traîtres au sommet de l'État et il y en a jusqu'à présent ba là il nous revient Cheikh Wad, le général col blanc, malhonnête. Il nous vient, le général Mbaye chef d'état-major général des forces armées, col blanc, malhonnête. Pourquoi affecter le général Kandé après avoir comploté le général Moussa Fall, un digne fils du Sénégal Général Moussa Fall, en un moment donné, et l'histoire retiendra, Sénégal demande de ba de ba un fils du Sénégal taxaw mu ne dëkk bi kenn du ko yàq muy le général Moussa Fall réglé ko les Casacé demon nañ ba préféré dëkk Gambie wala dëkk Guinée-Bissau wala génn dëkk bi parce que seen dëkk yàqu woon na le général Kandé taxaw ne leen dinaa leen delloo seeni suuf dinaa leen delloo seeni kër général Kandé a restauré les Casacé en un moment donné delloo na leen seeni kër yi ñu kontaan ñu happy parce que nit ku nekk nag nit ku nekk sa tiitar mooy fa nga dëkk fa nga cosaanoo ak loo munti ka am fa nga dëkk ak fa nga cosaanoo mooy sa tiitar am na temps Casamance ñi dëkk ci alentour yi Bignona la ñuy yem ñi dëkk ci alentour yi Ziguinchor la ñuy yem kenn du ñemee dem ci sa village benn fonctionnaire amul fitu dem benn commerçant école yi tëj les écoles étaient transformées en camp militaire xam naa ci dara les écoles fi Waron jang c'était transformé en camp militaire général Kandé taxaw Mounelen, accompagné d'officiers d'hommes de troupes, de sous-officiers dignes patriotes maintenant quel est le sort réservé à Kandé à ses officiers à ses ak sous-officiers à ses ak soldats ou affecté Maroc France ainsi de suite dans les consulats dans les ambassades je veux dire bien pourquoi Parce qu'il dérange. J'ai vu même un sous-officier supérieur qui affecté ci ben ambassade comme chauffeur sous-officier supérieur là alors affecté ko ambassade comme chauffeur n'humiliez pas nos forces de défense et de sécurité non ça je vais pas l'accepter ne vais pas accepter parce que je l'ai je le reste et je le resterai pour toujours je suis un soldat moi je suis un soldat dañ ma formé jangal ma def ci man xam-xam def ci man honneur donc du ma des prématurés des nerfs, des chrysalides ñëw di ça je vais pas l'accepter et là ces deux généraux là nga xamné ñoo doon balancer information yeb ñuy le général Biram Diop et le général Jean-Baptiste plus les traîtres yi ñu amoon foofu les cols blancs les généraux climatiseurs ñi nga xamante auto bu rafet climatiseur des généraux yi nga xam comme ay ministre ba nga nekkee ministre yàgg na yow biram Diop du tay yow Jean Baptiste maintenant ces gens-là viennent dire à Jomay le soir bi nga xamante ne Diomaye gagné na élection yi ñeu di ko di ko delloowaat seen Mbaye Cissé tin Biram ñëw dégg nañ ko yow lañ àndal te xam nañ yeneen secret nga xam dinañ la ko jox dinañ la dinañ ki mais cuub seen bopp cuub seen bopp ndax lan ndax xaalis ndax wécceet seen yoon nekku ci avenir sama doom seen yoon nekku ci avenir sama sët seen yoon nekkul ci avenir Sénégal non na dëkk bi tàkk à quel prix seen yoon nekku ci at fien que pourra c'est pas leur problème na dëkk bi boy ñoom am nañ la ñuy am seeni doom a États-Unis seeni doom a Canada seeni doom a un peu partout France ainsi de suite waree Allemagne di jàng nekk ci condition yi bien là on vous finance des miettes.

fi la wéru bi du commencé sama gaay yi palais bu jomaay di teud ay fetel lañ fa sacc ay fetel lañ fa sacc au lieu nak de faire une enquête très sérieuse pour situer ces bandits pour xol ñan ñoko sacc pour japp len balay musiba naaru laay ci am ci dëkk bi léegi ils ont préféré faire di buxaaba dajale ay borom leket boromu jaan boromu bopp golo ñoom Kunkande ñoom Mara ñoom Cheikh Bara Ndiaye tous ces la dajale leen ñu ne ñoom dañuy def pour pour génnee ki ko loxoom dina néewi ñi ko sàcc seen bopp seen biir dina néewi tant que delloo seen bopp fondoo état moo mag loolu état moo mag ay garabu garabook ay ay xarfa fuufa soyez plus sérieux que ça jomaay boo bëggee xam ton voleur bul sori PM est prêt pour te xaaral nañ dem sa premier ministre pare pour yàq la man maa wax heureusement nag bako ko sa yaay teelee xam heureusement bako ko suñu yaay ji teelee xam ñëw installé wu à Dakar pour sauver son fils ne woon Ousmane Sonko du maire moko intéressé du député du président du rien du tout il est venu pour gâter ce beau pays le Sénégal Ousmane est venu pour yak Sénégal waxon na len ko fi ci ay live sar nay wax rek mais bés buma ma ngén di comprendre lima wax limay wax tôt ou tard fay am té qui ko sauver rek la jeunesse de mon pays Restez debout. Donnez-vous la main. Teklen l'on fait les politiciens. Teklen l'on fait les populistes. Teklen l'on fait les je sais pas charlatans ou quelque chose comme ça. Teklen l'on fait les réseaux sociaux Ngen jànge kham kham. Ngen joxante loxo. Ngen jàkkaarloo avec ce régime-là. C'est neuf, c'est prématuré, c'est chrysalide. Ngen neeva l'essentiel le Sénégal et amener des députés dignes, des députés qui aiment le pays et amener la majorité de l'opposition à l'Assemblée nationale. Je ne vous demande de voter pour personne, mais voter pour des gens qui aiment ce pays. ngeen téyante de loxo Vous dem à la cohabitation à l'Assemblée nationale bu à la cohabitation à ak nationale waxtaan ak moom mu recevoir leen ngeen wax ko le danger ak lan moo tax ngeen am comportement bi te barki démb yéen a ko faloon à 54% faites ça et vous sauvez le pays faites ça mu nekk seen jihad faites ça mu nekk wéy ba nga xam ne du musa fay Sénégal on n'est pas le Mali on n'est pas la Guinée non plus le Niger non plus la Guinée-Conakry qu'on ni Guinée-Bissau nous sommes le Sénégal le Sénégal est un très grand pays un très grand pays Le la nga day Sénégal le moo koy réglé luy au Sénégal ba ci y assemblée nationale autour d'un débat à Sali, le problème Nous les euh, euh, je sais pas euh, règlement intérieur de quoi tu as peur Ousmane Sonko va à l'assemblée ne bloque pas notre pays demal assemblée nga wax ak sénégalais yi laa jomaay mën a génn yónni ay ay ay ay ay ay ay ay euh, ministre am yónni ay euh, lu mu tudd ay directeur am ñu dem uti koom-koom pour que Sénégal génn ci trou bi mu nekk les sénégalais souffrent le sénégalais ne mange plus trois fois dans la journée le sénégalais ndekkeetul le sénégalais foo ko fekk mu ngi waxtu le sénégalais foo ko fekk mu ngi xalaat Est-ce que tu veux réduire une, espérance de vie, nous les Sénégalais On vivait 100 ans, on vivait 90 ans. Maman Ablaye de yal nga fi yag, maman Mansour Mbaye ak ñeneen Mais ce qui se passe à Touba actuellement, ndox maa ngi ba ci national bi kenn xàmmeetul national bi ak li ci suuf ndox maa ngi ci biir dëkk bi à quelques jours de la fête ba nga xamantene économiquement parlant du moromu Sonacos usine du moromu benen usine ba nga xamantene da fay indi dara comme comme Sénégal magal Touba du moromu kenn fu 5 millions de personnes di dajalo fu 5 millions de personnes di dajalo même boudé chaque personne da fay consommer 1000 francs calculer ma lol yow mi yow machine à calculer 5 millions de personnes donte ku nek rek 1000 francs lay consommer fofu non calculer ma ñaata kom kom la dëkk boobu mun leen ko respecter regarde-moi ça regarde-moi ça ndox bu dem ba verte ndax seen populisme bàyyi woon fi ñi fi nekk wala ñu may leen jàmm ñu accompagner leen ak li ngeen di def nii lan moo ko gën le pays souffre le pays souffre respectez le général Moussa Fall respectez le général Kandé Ousmane respecte les Sénégalais président Diomaye Faye Corès yalbin dama lay ñaan kores dama lay ñaan talal la samay loxo suk di la ñaan moi qui aime le pays qui aime le Sénégal te xam lu bari dama lay ñaan débarrasse-toi du chef d'état-major général des forces armées débarrasse-toi de ton ministre des forces armées débarrasse-toi de ton ministre de l'intérieur bu bëggee jamm ci yow pour ne pas dire débarrasse-toi de Ousmane Sonko bu jamm ci yow wallahi boko deful kores bés dina jot yoonu njaga ñaw suri trop ci yow wallahi maa la wax li la mag mais su nijaay nga dama lay wax des gens qui pensent que man dama bañ jomaay mënuma bañ jomaay fay mënuma ko bañ parce que tey dinaa leen wax jomaay suma mbokk la man sama nijaay la man mais duma teree bëgg Sénégal duma teree gëm Sénégal j'aime le pays D'autres me diront pourquoi tu aimes le président Macky Sall. Parce à un moment donné, il a pris mon pays dans un trou. On avait je ne sais pas combien de kilomètres de route. Il l'a amené à 2500 kilomètres de route. On avait quoi au Sénégal Absolument rien du tout à part le pont, à part le pont de Soumbédioum et les deux ponts il fait de Défon, le pont de l'émergence à Le pays souffrait. Le pays était bloqué. On était 3 millions d'habitants avec je ne sais pas, 100 véhicules. On est devenu 16 millions d'habitants, avoir maintenant 20 millions d'habitants. Nous pouvons déplacer. Le visionnaire, mais attends, je vais créer ce pays-là. Moi, je suis un géologue. Le pétrole, le gaz va venir. Régis, tegal ma vidéo bi, ma ñëw doga vidéo bi nga xamante ne ces populistes ñu ngi wax naan ñom def euh, euh, satellite Bini également vidéo bi ma Le maire anticipe en disant pourquoi la réception du satellite à la Toulouse. Aéronautique hmm, de, la France. la foofu la xam bon y avait une délégation et cette délégation bi gis un camarade de promo euh, Mustafa Sow le professeur Moustapha Sow docteur et professeur mais professeur bo il a abandonné les classes dafa donc c'était c'était aujourd'hui bon quand je dis aujourd'hui moi vendredi bi euh, Charles Wow. satellite bi mais écoute d'ailleurs il y a un travail extraordinaire qui avait déjà été fait. Ça euh, borom euh. qui avait été fait par l'agence nationale de. <laughs> agence de <laughs> l'aménagement du territoire. Ah. ANAT agence nationale Bon, demain li nga xam que euh, il y a vraiment le Sénégal est carte cartographié Hein. donc. écart naa baax na. il y a un travail d'ailleurs un pays qui se développe est un pays qui tient l'information. Mm-hmm. et l'information est satisfaite. gisal seen bopp. vidéo bi nii ay année la wala ay weer la ya nga xamante ne ca gannaaw la émission bii di jàkkaarloo comme ñun dañuy gëstu ah ñun lépp indirect, indi rek ñu bo nee lundi ba samedi minuit man dimanche à 15 heures ma dindi ko ko indi jub jubal jubanti mais dëng dëng wengalu de Faye et Ousmane ça on va pas l'accepter dans ce pays jamais mais satellite bii ñuy satellite bi ñuy wax tweet qui dit que après cinq ans de de de dur labeur nous voilà aujourd'hui réussir à lancer le satellite le Sénégal entre aujourd'hui dans une nouvelle ère avec le lancement réussi de notre premier satellite sat 1A à 18h56 précise depuis la base de Vandenberg à Californie. Fruit de cinq ans de travail enchaîné de nos ingénieurs et techniciens, cette avancée marque un pas majeur vers la souveraineté technologique. Je tiens à exprimer toute ma fierté et ma reconnaissance à tous ceux qui ont rendu ce projet possible jomaay lan moo la empêché ci diggante moo yi nga fi def yëpp nga insérer ci wala illustrer ci le nom de Macky Sall